ma bëgg leen wax dara loo xam ne da ngeen ma koy nangul nag nee na d'accord ba pare. ba pare. waaye yéen ay triant ngeen. ñun groupe bi triant leen d'accord waaw.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 ñu wax lu tax mais dama leen di benn question est-ce que pare ngeen pour gunge ba Dakar pare ngeen. léegi léegi dama leen wax lenn ñun lan moo ñu tax a jóg lan moo ñu tax a jóg.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 yéen yéen a ne góor gi dëgër ñëpp dañu war a ànd dëgër jublu Ndakaaru dem jàkkaarloo Macky Sall